asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mardi 23 juillet 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglekaay yi yëglikaay yi nag tey dañoo xëy tey wala sunu lamb boobu mu xëy daal xëtam mu njëkk tey combat royal ba lañ fa fekk diggante Eumeu Sène ak Modou Lo mu mel ni ki nag yëglikaay ba dafa ñëw day jàpp na ne ñii day ñu ngi nag war a xëccoo tiituru roi des arènes bi nga xam ne mu ngi ci Eumeu Sène waaye jàppal yëglikaay bi nag dafa ñëw jàpp na ne day lii nga xam ne nii day moo di cinq ans yii day boo xoolee ñoom ñaar seen ay trajectoire daal dafa croisé maanaam jàppal fi ñu aw daal dafa mel ni daal am nañ fi ñu jaar foo xam ne am na lu ñu le mais am na loo xam ne day wuute nañu ko waaw yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di ñu wax loolu ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo bu dee ca Bombardier moom ku ne xam na ñoom ñaar bañ fa jaaree na mu demee waaye itam ku ci ne balaa ngay bëri ak moom day ay jafe-jafe amoon na ci sa combat ak Bombardier fa ñu jaar tamit ak Balla Gaye numéro 2 ëmb bu ci amee ndam itam Modou moom ay mbiram demewu ca noona waaye loo ci mën di dégg daal yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ñoom ñaari mbër yi muy Eumeu Sène wala muy Modou Lo keneen koo xam ne moom xëy na di ca joxe xalaatam ci seen combat moo di Côte su Jabong nekk ci France ca France coach su jabong daal nee na leer ba leer day combat la boo xam ne nii day jàpp na ne moom kii nga xam ne nii day wala boog li nga xam ne nii day mbirum favori la moom daa jàpp ne bu ci amee daal Eumeu seen lay doon waaye kaw itam day nee na lu ci mën a nekk la de nee na sàgganee sàggane day dóomu daanu mën na cee am ci combat boobu coach su jabong mooy wax moo tax ku ci ne daal mu ngi lay dànkaafu ci combat bi nee tamit combat la boo xam ne day bu nar a difficile la ci Modou Lo maanaam daal nar ta yomb ci moom coach su jabong moo xëy tey di wax lu mel noonu mu mel ni ki daal ñoom ñaar moom seeni mbir fi mu nekk nii day jàppal mu nga xëy daal di ca wax leneen loo xam ne nii moom xëres na te yëglikaay yi ñëw ci di ci wax moo xam sunu làmb la moo xam l'observateur muy combat bi fi amoon le treize bi ñu génn doxoon ci diggante booy ñang bu dëgal ak Lac de Guiers numéro 2 bu écrit waalo mu mel ni ki nag lamb ja daal ba mu jeex ak coow la nga xam ne ni moom la àndoon day ku nekk dugal sa recours di réclamer ndam yëglikaay bi di sunu lamb ak l'observateur xamal nañu ne nag li leer ba leer day CNG moom trancé na démb ba jox ki nga xam ne nii day moo di Lac de Guiers numéro de victoire ñu xëy tey jàng ko ci sunu lamb jàng ko ci fi nga xam ne nii moo di kii nga xam ne nii moo di l'observateur jamono jooja nag ba loolay am moom lees de mu mel ni moom mayul booy nag fu mu yekkee ak nàkkam nee na moom day ginnaaw Lac de Guiers numéro 2 na ko ba pare ñu bëre les deux daal moo xëy tey di wax loola ñu ne ko bu dul Boy Niang mu ne Boy Niang dafa war a ñëw jox ma sama revanche waaye bu dul Boy Niang itam nee na pare na de moo xam Quench la wala kay rek ku mu ci doon itam boo ñëwee yéen ñaar ngeen defante ba mu saf sap loolu yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax keneen koo wala ñeneen ñoo xam ne moom seeni defante ñu ngi koy waaj muy le 27 bii nu jëm te Fallou Ndiaye jaar fa Tyson 2 la muy di góor a soog metti na lool le jour bi na ko bu ñu ca yeggee da ngay xam ne lépp. dëgg lay doon góor itam tontu na ko nee na ko maa la laaj te maa lay daam mu mel ni ki daal làmb jooju moom jox na fi mu nekk nii maama Lamine na ngay dànkaafu jokkeel jonkal naan ko yow xamoo fi nga jëm kii nga xam ne nii day moo di ngeer ak Franc itam ñu nga ca defante bu méttee métti farus doomu dàngu ñoom itam ñu ngay defante waaye Cheikh super jamono ak bébé bis mi tamit ñoom it day ku ci nekk yaa ngay dànkaafu kii nga xam ne nii moo di sa moroom mu mel ni ki nag loolu daal mooy loo xam ne nii day loolu leeral leeral leer la yëglikaay bi ñëw ci waaye boo jaxaaw itam day wan na bàyyi ndeke kere ca Thiès daal ne ko fii moom maa ko moom daan ko jënd bu rëy rëy rek yëglikaay bi xëy na tey ñëw du ñu ko wax keneen koo xam ne nii moom ab xale la nekk ci làmb ji di ab promoteur muy petit petit nag moom ne na daal dafa bëgg a nekk ëllëg ab milliardaire wala sax bopp promoteur bu mag a mag a mag ci làmb yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dalal ko ci rubrique bi nga xam ne moom la ñuy tudde Leewtoo mu mel ne ki daal loolu moo fi ñëwoon tey waaye la jara fàttaliku daal le 27 moom bii nu jëm lambi fàllu njaay ja drapeau Moussa Diaw Moussa Diaw di kilifa fii ci Leewtoo day nañ ci bàyyi xel diggante ngeer lay doon ak Fara kon nag waa Leewtoo nañu waaj waaye waa asalem itam yaakaar naa kenn du des nag Taala Njaay di nga dem danaa dem ay Aysatu dina dem Ndey Kumba day dem kon Leewtoo géppay dem Taala yàlla nañ fekk la 27 incha allahu rabbi te tal ko asalaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu ko defee woon démb rek ñu dellu si waat tey ci seen revue de l'arène ànd ak sama mag sama xarit Babacar ñu dugg si jàngat bi fas yéene waxtaanee lu bëri Babacar nuyu naa la. fay naa la ay Aïssa Faye madame Niang sama rak sama xarit xale bu yar bi macha allah maa ngi lay bégg bu baax a baax di leen nuyu di nuyu sa borom kër Moussa Niang. kooku li nga xam ne noonu lañ ko xaar booba léegi muy décision CNG ginnaaw bi nga xam ne recours dugg na après combat la de guerre Boy Niang CNG na daal ki nga xam ne nii mooy Lac de Guiers victoire. waaw loolu de la ñu xëy jàngat ko ci journaux yu bëri moo xam sunu làmb la l'observateur ak yeneen journaux dégg ko tamit ci rajo yi ah muy loo xam ne kon mooy li nit ñi doon xaar ci combat boobu fan la verdict bay mujje li ñu jàngat nag mooy verdict ba jox nañ Lac ndam ah loolu nag. mooy li nga xam ne nii su amee ah euh, ña ko def ñooy yore dogal yi muy waa CNC comme ñoom jàpp nañ ne kon arbitre ba daa juum moo tax xëy na kon ñoom ba ñu xoolee seen ay vidéo def seen ay visionnement comme ni ñu ko jàng ci yëglekaay yi ñu xëy tey transé ne Lac de Guiers numéro 2 moo am ndam ci kaw booy Niang loolu nag su amee ñun en tant que ñu nekk si làmb di wax dañuy féliciter Lac de Guiers numéro de encourager booy Niang su dee mbir yi noonu la mujj a demee parce que tamit sport la ah, ku ci nekk rek da ngay ñëw si. ñàkk bi du sa ñàkk fayda wala sa ñàkk jom am ndam bi tamit du sa kàttan wala sa man man dafa fekk ne sport mu tëddi noonu ndam day am wala mu ñàkk wala match nul am comme comme li li li leen di wax daal mooy ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ko doon bëree yaa ngi dégg euh, ku ci ne lan la waroon si entraînement def nga ko ñi la war a ëmb ëmb nañ la indi nañ la ca làmb ja bëree nga combat ba fa mujj gis nañu ko ñi ne nañ match nul la woon wala arbitre ba wax na ko laay wax sax nit ñi. am ñu d'accord ne match nul amul muy waa kër Lac ne dañoo daan waa kër Boy Niang itam jàpp ne ñoom match nul amul dañoo daan ndax Lac def na kat ab bi ku nekk la la yoon man nga def ko muy recours recours ba génn jox nañ ndam Lac ci li ñu jàng ci yëglekaay kon ñu ngi koy féliciter encore une fois di encourager Boy Niang mooy ko parce que lu ñu xëy jàngat ko ci yëglekaay yi la parce que tamit làmb noonu lay demee buñ la àtte loolu neexul bu la neexee dem fa mbaxana doone benn muy ño yore ñu àttewaat ñooñu nag ñoo waat waaw dañuy daal di tëj page combat boobu noonu jàll ci combat royal bi nga xam ne vingt 27 incha allah la war a le 28 incha allah lañ koy xaar ñu dem euh, si li nga xam ne ni mooy lañu suñu lamb andil mu andi ñaari parcours mbëri ci 5 ans yu mujj yi kii di Eumeu Sène daan na fi Balla nekk na fi roi des arènes mais tamit euh, def na fi ñaari saison blanche kii di Modou Lo da euh, gagné na fi Gris Bordeaux bëri na feeg la daguère te au point lañ demaat ba tey mais euh, am na fi défaite ci kaw Balla Gaye 2. waaw loolu ci cinq ans yu mujj yi ah ñoom ñaar waaw loolu moom yëglekaay bi ñoom et noonu mu ko waxee noonu la fa demee waaw Eumeu seen nekk na fi roi bëri na def na fi année balance ñàkk na fi komba Modou Lo tamit. ñàkk na fi combat am na fi ay ndam loolu moo lay wan ne kon daal ñoom ñaar ku ci ne tey fi nga yegg si nii pour man liggéey moo la fi indi ay effort yoo def muy ama muy muudu ñuy ay mbër yi nga xam ne tamit mbër yu mbër yu mag lañ ci ci làmb et mbër yu ñu respecté la parce que li ko waral mooy seen liggéey parce que ku ci ne si ñoom ñaar ñàkkuloo ful la ama seen bu ñàkkoon fu la defe naa wala mu am nekk ku amul gëm-gëm tey du nekk roi des arènes mu loolu itam yaakaar naa ak boo ko xoolee ni mu mel bu gëmuloon li muy def wala nanguta sonn ci li muy def kon tey niveau bi mu yegg tey du fa yegg kon daal li ñuy wax mooy le 28 moom ci kàttanu yàlla moom nar nga gis tamaat combat bu neex bu soobee suñu borom tey ñu des si combat 28 boobu kii di coach Diamond tamit ñëwoon na si ka defa analyse force ak faiblesse ki nga xam ne mooy ñaari mbëri. waaw coach Diamond ku ci ne wax na ci sa fort ak sa faiblesse waaw loolu nag moom en tant que coach di kat moom moo ko wax parce que tamit technicien la ci wàllum boxe waaw loolu nag moom mu xëy ñëw ci ñoom ñaar mbër nag mbër moo gis muy athlète buy bëre ji am na lu mu foore am na lu mu faible. loolu moom ñëpp a si yem l'essentiel que yaay fexe ba sa faible sa adversaire bañ ko xam wala bu ko xamee itam nga tere ko ba du ca dem parce que fi nga faible saa yu ñu la ca fa yeggee moom man naam balaa ngay xalaat nga ñàkk sa combat kon moom mu ngi leen di dànkaafu ci côté boobu ci côté xeex bi itam ñëw na ci parce que xalaat na ni kaw mën na ci am effectivement xalaat naa ne bu ñu xeexee benn xeex bu sax bi kaw mën na ci am te ni ma leen gisee ni ku ci da nga jël décision da nga jël da nga décider ndax Modou Lo keroog xool da ngay gis kanam gi dafa sévère dafa sévère complètement Eumeu seen nga gis ko xam ne moom itam firi na mais ci biir firi bi yëpp da gis ne que tamit lii nii da ko da ko dafa ànd ak sévère firi na moom Eumeu Sène de mais dafa tamit téye li mu jàpp am na lu mu téye voilà boole ko fula loolu nag moo lay wan ne kon bi ñu jëm daal ay sa nar neex trop yàlla nañ ko fekk tal ko pour le 28 juillet incha allah. ba tey si wàccaay combat Babacar la suba incha allah ci mercredi bi open press yi fas yéene door ak ki nga xam ne ni mooy Eumeu Sène fala ca stade euh, Alassane Djigo bu Pikine waaw loolu di lu ama am solo waaw Eumeu Sène suba open press am Alassane Djigo la koy defee ah ñuy ñaan yàlla mu commencé ci bismillah rahmaan rahim bi jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin rek te tamit waaw kon moo lay wan ne moom itam mu ngi ci waaj moog waa Pikine pour di waajal la waaw dernier virage yi comme ni ñu koy waxee bu defee su euh, euh, suba ginnaaw suba Modou mootloo tamit def mu wan ne ko kon daal fi mu nekk nii moom lay jeex na daal waaw ku lekk avance tëdd pomme te ñoom lekk nañ avance ba pare kon Samba yaa ndengaan dina jóg faw ñu bëre ndeysaan du mën a ñàkk ay sa incha allah ñi koy xaar euh, le lay doon mais Babacar dañuy jeex ak ki nga xam ne ni mooy les les de nekk ci école de lutte euh, Balla Gaye ginnaaw bi recours bi génnee nag moom tamit profité na wax ci soxlaam nee na ko Boy Niang jox li nga xam ne mooy revanche am wa ilaa nag mu dem ci ki nga xam ne mooy Quench ak Diène Kairé waaw les deux ndax comme ginnaaw rek wax sa soxla xam naa la def kon moom comme la doon xaar recours bi génn mu wax ah loolu nag moom lamb moom day ànd ak revanche waaw lamb moom day ànd ak ku la daan da ngay xalaat ëllëg mu jox la revanche xëy na moo tax mu xëy tey di ko réclamer Boy Niang ba xam ndax ndax na Boy Niang actuellement dina ko nangu wala déet foofu tamit fa la mbir ma ne moo ko sa jin kayri itam defe naa foofa moom kenn mënu ko faa bañ parce que defe naa lu mu métti métti mën nañ ne seen doyen la si làmb kon defe naa voilà te looloo am kon muy jiin wala muy coince rek ku ci lees tàllal loxo rek war nga mën a profité ci occasion boobu tamit jël ko ngeen bëri ak bëri ak moom parce que comme li ñuy garab si kaw lay fekkante te lamb du ak maas mais dabante la voilà. waaw Babacar euh, ñu jeexal tam ak drapeau bi nga xam ne nii le lay am drapeau monsieur Diaw lay doon fële ca. arène nationale Fallou Ndiaye tëgg ko boole ko yeneen affiche yu mag ñoom Gora Sock Tyson 2 waaw Moussa Diaw ñu koy nuyu di ko siyaarat Abdourahmane Diaw bu asalem borom ADN moom Fallou Ndiaye moo ko tuddee drapeau ci lambam ji mu tëgg le 27 franc ak ngeer muy drapo xam ne tamit c'est spécial parce que comme li may wax rek moom ñu nag moom ñoo nekk fii muy suñu kilifa moom moo Pape Thialis Faye mais nekk nag nga xam ne ni wax dëgg yàlla euh, mën naa ne kilifa la bu mat kilifa par rapport rek ni muy essence ak ni muy liggéeyandoog ñoomu yaa ngi dégg bu ko neexoon xëy na mën nay wane beneen xar kanam en tant que patron mais doxewul noonu kon defe naa bu ñu ko tuddee drapeau ñun ñu nekk si làmb dañ ciy dañ bëgg di ñaan yàlla drapeau boobu jik ko ba pare nekk ay drapeau drapeau yeneen yu gën a mag déwén yàlla na ko ko fàllu tudde parce que tamit mérito na lépp loolu di wax nekk daal ñu ngi wax gaay yépp ak képp kuy soppe Leewtoo wala ngay soppe Babacar ak Aïssa ak Talla waajal samedi incha allahu rabbi nga ñëw asalem ñu gunge Moussa jaw yóbbu ko arène national drapeau ngeer drapeau franc ak ngeer drapeau la ñoom ñaari ñu bëree ñoo koy bëree encore une fois daal di wax ne loolu dañ ciy bég bu baax a baax ay safay waaw loolu la ñu andi loon mbokk yi suivi TV ñu leen di jaajëfal lu baax di jaajëfal Mame Talla ci caméra bi Ousmane ci montage bi jaajëfal équipe Leewtoo TV bi yëpp ak képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee Leewtoo à chaque fois duñu safoo Babacar waaw Aïssa noonu lay demee di fois di leen ziar di leen baalu àqati di leen baal di sàkku ci ñoom tamit ñaan ak fu ñu mën a si àddina bi rek ndax fu ne la ñuy ci àddina bi fu ne lañ woowee kon ñoom amuñu seen que ñoo ñuy suivre xam nga di si profité di nuyu ko mel ni aw Diop bu Balla Gaye de supporteru Modou Lo ak Amina KMB moom maa ngi nuyu tamit nekk fi nga xam ne mooy ci Golf wala Cité Aline Sow ak ki nga xam ne nii mooy Asi Diagne depuis Mauritanie maa ngi nuyu moom di soppe Modou mais ndaag bu Eumeu Sène tamit du ma ko fàtte seeni biram ñi ngi ndaag maa ngi nuyu bu baax baax di soppe Eumeu Sène ak ñoom Lamine bu Eumeu Sène yëpp ñoom Isa bu Eumeu Sène maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm mais tamit fans club Leewtoo bi du ma leen fàtte ñoom Cissé 100 pour cent Babacar bi waa xew xew làmb ji maa ngi leen di nuyu ëttub làmb ji groupe baax ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak ay sax